bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbale ci xar bi nga xamante yëg boo njëkk yëg di pont la jóge ba kees jóge ba kees kër momo ñëw fii di wane boppam waaw box huit la jógee waaye xoolal booy fu mu teg tànkam mooy di pont dafa dafa dafa bëgg ñu takk xar bi takk bu baax dañ ko ngóofaan dafa bëgg ñu takk xar bi takk bu baax moo tax it takk nañ ko moo a fare na ko ginnaaw mais xar ba xar bi ngaana xar waaw génn na baaraam ba génn na baaraam ba bu ko génnewut xar taxaw nañ taxaw xoolee taxawaayu xar yi yekk na mu nekk onze femelle olof di ko wax ne fukk ak benn onze femelle la doon olof baa fukk ak benn fukk ak benn la ko wax mais xar bi xar baa ci kawam lay saa bu ko yokkuwaatee tuuti rek mu taxaw Arma nga ci kaw Ablaye Sarr mi ngi ci kaw Arma nga ci kaw Ablaye Sarr mi ngi ci kaw mais Arma nga ci kaw mi ci kaw Amadou Mbaye ar ñu njëkk a yow kay nenga nengal di ko raay raayal ko raay raayal Cheikhou Camara Cheikhou Camara tàmbali na liggéeyam tàmbali na liggéeyam raay rek lay liggéeyam raayal ak jonk raay ak jonkan mu ngi di ko jubbanti na xar bi xar bi taxawaay bi baax na bu yéeg xar ma yéeg na xar ma yéeg na xar ma yéeg xar ma taxaw na Seexu Kamara may ñu tuuti Pape mu ngi koy raay raayal oh Pape nu koy boros xar mi doy na war Pape bàyyil boros bi. li nga xamante ne mooy la première édition en tête association nouveau type d'élevage Touba ak président Modou Faye ak président Modou Faye lii histoire de xar maa ngi ci kaw oh. boy jambar jo baba ngi wàcce garobo baba wàcce na garobo o oh, xar maa ngi ci kaw xar maa ngi ci kaw mu nekk ñaareelu xar mu nga xamante yéeg mu ngi noonu yéeg na ci kaw mu nekk xar bu doy waar Pape wàccee na garo ba Pape wàccee na garo ba ba léegi nanguta taxaw mu koy wàccee taxawaay bi jekk na taxawaay bi jekk na taxawaay bi jekk na oh mu ngi noonu mu ngi noonu Pape wàcce na garab Cheikhou Camara mu ngi ñoddi ñoddi na tànk ba wàcce na garab

Mohamed noonu am oto 102. waaw waaw. xale yi benn foo ko déggee nañ foog Touba bàyyi wu bëri ñu yëf la gën a yomb. ah su toll fii ba. grâce à seen bopp. oh Abou Ndaw tey garaam bu la maye. mu ngay wane boppam. boo oh, ko na ngeen bi ca ba. mu ngi koy Cheikhou Camara ngay ñoo di tànk ba waaw Cheikhou ci ginnaaw oh di ñoo di tànk ba mais xar naa ci kaw ndax la dab sar oh foo ko teg te dënnu wala nekk oh loolu yàqul dara Ablaye oh. dara lu lekkul dara Ablaye Sarr oh. xar baa nga yëngal kenn ka xar baa nga yëngal kenn ka mais xar bi moo la ko indi bergerie ndaw fere oh. la jógee taxaw na taxawaay bi jekk na amul discrimination amul taxawaay ba jekk na mel ne ki nga xam ne moom mooy Fadilou Keita taxawaay bi jekk na nga xam ne moom bi nee na dégg association boobu di wax arab waaye bu mel ne soxna nab di soxna si ne moom la ñu mara ni bis oh. waaye deuxième fois bàyyi noonu ñaareelu wàccee baa ngi noonu ñetteelu wàccee baa ngi a ñetteelu wàccee baa jël na ay garab taxaw na nee waaw yàq topp ci man lin def laa bëgg a moor muñ na xar maa ngay yut dama dama bëgg a xar maa ngay yut a ngi añoo yi moom leen dénk gi ko takk nañ ko takk bi waaye fuñ ko takk si calcen ba baax na Ablaye Sarr mais daal xar mi moom na moom jël ne gardam moom taxaw na de nee na man kenn du ma yàqal kenn du ma yàqal kenn du ma yàqal ma bëgg a yóbbu ndam li mari waaw waaw ndax euh, may ñëw ngay xiini xiini ba du ñaa nga mag ma toll yow nga ñëw ba fii di ñu rusloo Abdou Karim fooy bi jeex na ah ndax taxawaay bi dina baax ci moom yàgg na fi de. waaw taxawaay bi taxawaay bi jekk na. jekk na jekk na. taxawaay bi baax na. boo ngaa jekk na. oh. Billy Boy jekk na. maa la wax loolu Pape teg ko randu xar bi. Oh. nee na ko tegal ma ko fii. tegal ma ko ci garab. lu mu bëgg lu mu bëgg. kenn xamu ko. Oh. nee na ko tegal ma ko fii. mais expert la ci nat. xool ko mu nga yurndu. xoolal expert la ci nat sëñ Moustapha. xool ko expert la ci nat. xool ko. non non oh. dama gëm ay macération. ba du mépp. mais xar yi daal la. taarikal la. mais xar mi nee na na. nee na nee na ko du ma la rusloo. du ma sama bopp. compte bi ngay ma la rusloo. damay jëgal sama bopp. compte bi ngay jox du ma la damay jëgal sama bopp. waaw jërëjëf bàyyi noonu nee naa amagul lu amagul lu ko neex de mais. waaw waaye taxawul de. waaw. xar ma taxawaay ba jekk na. donc ngay collègue dégg nga ko. Amadou Mbaye. waaw. tey dafa mel ne. Mhm. Euh, ni xar bi taxawee wala lim am. waaw euh, dafa mel ne euh, tey. mais nga wul lu mu bëgg ah, waaw mais nga wul lu mu bëgg. mais loolu ci waaw foofu moom natt nañ ko ba pare. jeex na ñoo ngi ci LCS ba. ci LCS ba lañ jëm. ndax dina signé du signé. non dañu xaar kayit ba pare rek. non day signé parce que sëñ Moustapha Gueye du yàq bis te bis bi moom lañ ko tuddee. en tout cas daal xar bu jóge ndaa frère. indi ay frigo ñu gagné. waaw da ngay am oh. ci deuxième ah, te tamit euh, kuy dundal élevage. ma dolliwaat ci leneen man maa ci dolliwaat leneen. ku ci jox frigo bu paan. dama woo ma ñëw defaral ko. waaw waaw ku ci ko waaw waaw. waaw Amadou Mbaye ku la ku ci jox Virgo bu doxul man maa ko koy brancher ah ci gratuit non man maa ko ciy brancher ci gratuit da dañ cee aay nekk day sedd bay liw Amadou Mbaye xar ma nga ci kaw Ablaye Sarr xar maa nga ci kaw Amadou Mbaye xar maa ci kaw taxawaay bi jekk na. daa mel ni dem nañ ci li nga xamante moom mooy. dem nañ ci erreur ba ñëw ci LCS. Aboubou ngi taxaw tegale ay tànkam. waaw tey Aboubou Ndaw waaw waaw tey dafa sañse. sol. tey bule ba la maye. ay dàll yu weex. mi sol yére olof bu bulo. oh. teg ko ay dàll. waaye bile. bile ngay muñ. bile sañse man la. Ah, bili tey moom kenn xamul lu mu sañse. bili ndaanal la. non xoolal ma pap maanaam bu doon tuguroon la. waaw dàll xam na lañ koy tuddee. Ah. may ma. argaay nooyee. ba. papa ngi yëngal bopp bi. ñoo oh. ay naayik la sol ay naayik. sol yëre Adidas. Kasum kan yoxosu a xaasum yaqasu na heure ba jot na oh waaye day ñëwaat dafa am lu muy jël day lijjanti ji mbaa du wax ji leen dégg moo tax mu bëgg a ñëwaat wala wala day reer ñoo ngi ca dënn mo ñoo ngi ca nekk ci nag moo tax tey jii tey gars maa la wax loolu xaaral tuuti xool abo may leen ma tuuti mu day mbaagante mal espoir mos na dara mal moo jiitoogul moom aboo mii oh, xar ma dalle kuna oh, xar ma dawna ba dalle abo faalo ko andi abo faalo ko indi mos na dara oh. abo mos na daa bëgg ñu tudd ko tuddal non Faye Faye dañu koy bàyyi ba ci kanam. non tudd ko Faye Faye. dafa wu. oh Faye Faye dafa concentré wu. Oh. nee suy nee suy bind bu ko kenn woo. nee na buy bind bu ko kenn woo. bu ko kenn muy jaxasal jaxasal chiffre. barke Serigne daa mel ni moom ku fi jóge léegi nengal nan ko ray papa nga koy nengal daa mel ni moom ku fi jóge léegi xoolal xoolal xoolal xoolal Cheikhou Camara fu muy tàpp Cheikhou fu laal bàyyil fu ngay tàpp Cheikhou Cheikhou bàyyil affaire yi bàyyil tàpp bi ngay tàpp oh Cheikhou oh arbitre taxaw na arbitre taxaw na nenga nengal nan ko ba xar bi taxaw. nenga nengal nan ko ba xar bi taxaw. ñaari xar yu jigéen ci des. xaw ma ñett xar yu jigéen. fam ni fam ni muy nenga nengalee moo tax xar yi mën a taxaw di taxaw. waaw. jël ko yara fu nga teg sa loxo day na waar ci fees bi la ko teg. Cheikhou Camara ci fes bi la ko teg Cheikhou koy neng nengal oh mbaa du toog mbaa du sukku mbaa du sukku ñod gen nga ñod gen nga waaw dafa baaxoon ci waaw waaye ndax dafa banku dafa banku Ablaye Sarr non du discuter. ah mbaa du ko dóor. mbaa du ko dóor. si motu la. waaye ànd ak nga wax ni décembre bi sama xarit seen jóg. te bu doon bëccëg ba léegi bokk na ñibbi. guddi guddi moo war. tey na mu may imaam yi si jàkka ya. nii la ñu duggee si jàkka ya jël kool ga. teg ko ci seen yaram. waa jaa ngay yërnu. mais jàkka ji waaye fii di jàkka ja jàkka ji am kol waaw macha allah xarba ci kaw jeexoon koy neng nengal jeexoon koy raay raayal koy neng nengal balo koy neng nengal bouge de bouge de dagara tànk ginnaaw yi

Mor boot na loxo ya waaye Pape mu ngi koy neng nengal Pape jox ñu cër waay ah frère xar maa ngi ci kaw Ablaye Sarr taxawaay bi jàkk na kon nangoogul nee na ko taxawaay bi baaxagul nee na ko xëccal ma tànk bi ci ginnaaw Ablaye Sarr xar maa ngi ci ci biir Ablaye Sarr bu ñu fàtte ne leeral élevage mu ngi def direct bu am solo mu ngi def direct bu am solo waaw mu ngi def direct bu am solo nga xamante tey wax dëgg yàlla tey foo dem rek seetaan ko rawatina ci li nga xamante moom mooy ci page am bu nga xamante page bu mag boobu mu ci tiktok bi ak ci facebook bi mu ngi noonu xarmaa nga ci kaw Ablaye Sarr waaye tamit soo demee ci youtube ba fekk ko fa oh mu nekk du doy waar waxoon naa leen xar mi du gaaw a taxaw xarmaa ngay saw xarmaa ngay saw xarmaa ngay saw Ablaye Sarr oh, oh. taxaay courant coupé na fi ñaari yoon moo tax taxawaay bi yàgg. dama tàmm tàkk. oh. bi leen koy nenga nenga. moo reeno